ñun ñi nga xamante ne ñoo jiite gox bi tamit dañu nekk ci ay koñ te difficulté yooyu dañu koy am wante nag yàlla baax na ba ñu toogee entre dirigeants yi nga xam ne ñoo ŋànk le mouvement nawetaan ak le maire ñu toog waxtaan di jéem a xool à l'avenir li am nii naka lañ koy mën a saafarawee bay teel a jot ci subvention yi dafa am la nga xam ni nag dafa am ci administration la ñu nekk mu am la nga xam ni unicité caisse la wax tey amna ci la nga xamante ni ñoom yilif maire bi ci walu finance ñooñu dañuy doxale ci li nga xamni moy ordre de priorité parce que do gis la nga xamanteni dess na 6 mois lenn li dess 2 mois ñoom bu ñuy joxe dañuy joxe li nga xamanteni 2 mois mo dess mom mu jot lolu dafa nekk ay difficulté nga xamanteni ni na ni euh, bureau municipal bi ñu ngi tok administration municipale bi ñu ngi ñuy toog dinañ jëm fexé fexe daal ba subvention yi nu mëna télé ba ay sey di ko jot ñu japp ci am na ci la nga xamante ni mëbët la ba nga xamante ni waxuma sax la le ma nawetaan mais la population de Hann ñoom ñoo koy jooy ñu ngi wax fi ñuy football liggéey sori na dañuy guddee tey suñu stade bi nga xam ni dañu ko am di fàttali rek ni amul benn commune bu nekk ci Sénégal ba nga xamante ni sa stade bopp yaa jël sa xaalis defar ko day nekk ya nga xamante ni coopération internationale lay nekk état du Sénégal financé ko tey bu ñuy seet ci wàllu commune moo nekk première commune ba nga xamante ni dégagé na 520 millions nar ko def pôle synthétique defe naa ni bu may wax ci kanamu maire altine nga xam ni defe naa ni amul une semaine maire Matar dina ci ñëwaat maag moom ñoo bokk commission bi nga xamante ni ñooy attribuer marché defe naa ni dépouillement bi nga dépouillement bi nga xamante ni def nañ ko nga xamante ni képp ka nga xam ni da def pôle synthétique am ci la nga xamante ni expérience la defe naa ni ñun dépouillé nañu te yaakaar nañu marché bi lundi dina am ku ñu ci attribuer parce que passage sur le marché nonu lay démé dañuy simissioné am société ya nga xamanteni tay ñi fi ñëwoon xam nañ ni stade yi ngeen gis ñu réflexioné ko fii ci Sénégal yëpp ñooñu ñoo ñëwoon en Bélair ñoom ñoo defoon seen appel candidature lundi dina am ku ci attribuer te yaakaar naa ni loolu am nañ ci yaakaar parce que ndamu yaraax la ndamu maire bi la xam naa ni du ma monopoliser la parole du ma def lu gërëm ñi nga xamante ni ñoo ngànk la mouvement nawetaan ñun xam li ngeen di daj nawetaan dafa metti ken fayu leen ci dara te chaque jour yéen a ngi ñëw di encadré tey bu ñuy gërëm le mouvement nawetaan parce que tey am na ci loolu ya nga xam ne ñun parent tey Mamour Dien ngi nii wax ci turu zone ba nga xamante ni euh, zone 7C tey sama doom fu bëgg koñ bi ma dëkk moom moo ko encadré ñoom yor ñoo koy wutal dàll ñoo koy jox paas lu nekk ñoo koy def kon tey le mouvement navétane ñun ñi nga xam ne ay parent lañ damay wax au nom des parents du ñuy def lu dul di leen remercier di leen gërëm xam naa ni kàddu yi du bari foofu laa yem sm di leen jaajëfal ak suñu kilifa yi ak mooy suñu mbokk éli yi nga xam ni tey ñëpp mes collègues jeunes yi tey ñoo fi nekk nga xam ni ñooy xàcc xàccandoo ñooy dóorandoo lépp lu ñu soxla ci commission di ko dafay metti trop parce que le mouvement nawetaan nag dafa nekk la nga xamante ni day indi coow yu bari bari bari dañu nekk ci conseil municipal ba nga xam ni 66 élus ñoo fi nekk kenn ku ci nekk di am looy défendre bu ñu waxee ci sport am na ña nga xam ne ci santé la ñuy wax am ña nga xam ne ci éducation la ñuy wax dañuy sànni ay xeer ne ñu ñi ngeen di dépendre ñuy def 15 millions di ko ci def tojante bopp ak tëj police mais ñu dañuy daj lu nekk di xeex te après dañuy nangu kon mes collègues élus du ñu def lu ñu di leen jaajëfal di leen ñaanal taxawaay bi rafet na ñu ñaan rek Hann bel en avant Hann bel ca kanam je vous